asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di baal xaq ñu ngi leen di baalu xaq ñu ngi leen di ñaanal jàmm ak tawfeex ak saxaadatu daar yi ne ko sàkku ci yéen mbokk yi tey dañoo dikk ak yéen ci gént malaayika gént malaayika nag xam nga ne bokk na ci gént yi nga xam ne yi yu yéeme la bëriwul sax nit ñi dañ koy gént waaye léeg-léeg dana dikk nit ñi ci ay benn benn rawatina ki nga xam ne day góorgóorlu ci borom bi subhaanahu wa taala wala ki nga xam ne day borom bi subhaanahu wa taala namm na ci moom dara borom malaayika nag ñu bari léeg-léeg dañ ci am jaaxle ak li ñuy tudde ak rawxaan xanaa rek bu dee rawxaan moom bu ma ko tënkee mën nga ne dafa am ay maana yu bare bare ak ay dégg-déggin ndax léeg-léeg mën nañu wax rawaxaan jublu ci malaika te mooy nit ki nga xam ne day tudd yàlla lu bari tudd yàlla nag ba mu koy wax alxuraan ci jiitu ak salaatu ala nabi ak leneen loo mën a jëfandikoo ci turu yàlla yi ah, leer yooyu ngay yëg ak malaika ya fay teew léeg-léeg ñooñu dañ leen tudde ay rawxaan ba tey man nga tudde rawxaan ñu ne nit koo xam ne ruuxaan yi la koo xam ne ak ruuxam dafa sell ba yàlla di di ko won ay kashu ci yi nga xam ne dafa nëbbu nga xam ne dégg-dégg rek nga ci am yu baree bare suñ borom di la ko wan nga xam ne foofu kooku dafa dem ba ruuxam set ñu tudde ko insaan ruhani wala rabbaani nga xam ne nitu yàlla kookee am ne dafa am kashf muy xam lu baree bari ci li nëbbu ci mulk ko malakut léeg-léeg kooku danañ ko tudde man mën ngay tudde nit tamit léeg-léeg daanañ ko waawaay kii boroomi rawxaan la léeg-léeg wolof daano koy wax jubli ci koo xam ne dafa am boroomi gaay wala boog dafa am ay jinne yoo xam ne léeg-léeg dañ koy xibaar wala sax ñu tudde rawxaan jublu ci jinne wala sax ak yu mel noonu kon mën nga tënk ne rawxaan yooyu yëpp ay dégg-dégg la ci waaye bu fekkee ci jëmm malayika la nga xam ne mbindeef la moo xam ne ci mbindeefu borom bi subhaanahu wa te yàlla bind ko ci ak leer comme nim ko dikkee ci ay aay yu bari ci alxuraan muy ñoo xam ne mën nga ne tudd ay rabbaani yuuna lañ ndax suñ borom dalee na tàggat ngir jaamu yàlla rek tara leen xam ne duñ mën a mooy yàlla benn yoon ci ndigalal borom bi subhaanahu wa taala li ñuy wéy te ñoom kat deesu leen melal aw góor duñ ne malayka yi ay góor lañ mënoo wax na it malayka yi deesu leen melal it ay jigéen mala malayka yi duñ leen wax ne ay jigéen lañ kon malayka yi deesu leen wax ne ay góor jigéen lañ mbindeef lañ daal moo xam ne mbindeefu borom subhaanahu wa taala na leen ci coobareem ak melawam bëgg ñu mel ko malayka du lekk comme nit ak mel ak rabi àll yi malayka du naan malayka du jote maanaam du am rapport sexuel maanaam daal ñoom daal jaamu yàlla mooy seen liggéey te bu dee ci lislaam gëm malayka bokk na ci na ci ponk diine yi ruknu min arkaanil iman kon képp koo xam ne nee nga am jullit nga te weddi ah, malayka kon bàyyi nga ponk ci ponk diine yi maanaam weddi nga alxuraan ndax dikk na lu bare bare ci wane ne dañoo war a gëm malaayika te ay ay ay ay alxuraan yu baree bare dikk ci te bii bokk ci fi may waxee ne yaa ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته لون جانغكم لو بري بري القرآن قل لول فرنا لنا ruknun min arkaanil iman malayka yi nag am na liggéey boo xam ne borom bi subhaanahu wa taala moo leen ko moo ko jagleel ak ay yitte yoo xam ne jagleel na leen ko ngir ñu koy doxee saa yu nekk yooyu nag bokk na ci di jottali wax yu maanaa ki nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala tànn na ko muy ab yonent wala bokk mu war ko yónni malaayka yi jottalil ko wax yu boobu bokk na ci seenub liggéey lu ñu tudde an nafxu fi suur maanaam buñ demee ba war a yegg si bis penc mu ñu am ku wal bufte bi ñëpp faatu liggéey malaayka yi bokk na ci nasu arwaax maanaam di nocci ruuxi mbindeef yi maanaam di mbindeef mu nekk ku ab appam jot am na ku ñuy tuddee malaayika boo xam ne mooy ñëw jël ak xam te mel na ni kooku kat ku ne war nga caa bàyyi sa xel ndax bis dana ñëw nga dajeeg moom bokk na ci li ñu war a gëm muy malaayika yi am nañ ay melo yàlla jox na leen kàttan goo xam ne kàttan gu yéeme la yàlla bindal na leen it ay laaf yoo xam ne saa yu nekk mën nañuy soppi ko kon mën nga malayka mën nay soppiku ci melo woo ko soob ndax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sax maanaa jibril ba daa ñëw ci moom benn saxaaba kuñ daan wax daxiyatul kalabi ci jëmmam la daa la kon day soppiku nit di soppiku leneen ah malayka yi nag suñ borom teral na leen teg leen ci barab yu kawe kawe fa moom kooku nag bokk na ci ki ci gën a siiw wala bokk ci ñi ci gën a siiw muy Jibril xam ne borom subhaanahu wa taala yëkkati na ko ci alxuraan ba tàyyi te aay bi bokk ci innahu la xawlu rasulin karim zi quwatin inda zil arshin makin mataain thamamin yi ay tagg yu kawe la borom subhaanahu wa taala tagg ko Jibril alayhi salaam malaayka yi nag xam nga ni kon seenu lépp seenu lépp ak jaamu yàlla la te jaamu yàlla yi ci ëpp yi ñuy def mooy tasbih di sàbbal borom bi subhaanahu wa taala jaamu yàlla yooyu na ci di wër kaaba ga di wër it baytul maamur baytul maamur waxoon naa la ne mooy néeg bi jàkkaarloog kaaba gi nekk ci juróom ñaareelu asamaan nga xam ne saa yu nekk bés bu set mat juróom-ñaar fukki junni malaayika dañ ko wër yoo xam ne buñ demee dootuñ dellusi bokk na it seenub liggéey di ñaanal jaamu yàlla yi ak di leen sopp bokk na it ci liggéey di rëbb yéefar yi ak it di leen buggal seenub lim nag yàlla rek xam nu mu toll ndax bari nañ lool lool lool barawaay bi nag mën nga ko xalam sax ci li ma la wax léegi nga xam ne foofee ñuy wax baytul maamur lu mat juróom-ñaar fukki junniy malaayika danañ ko war saa yu ne bés bu set te dootuñ del si te it mën nga xalam seenu barawaay ci amul toq toq bu nekk wala xobu garab wu ne am na malayka buñ la buñ la wakiil maanaam malayka bu ne sa kon loolu xam nga ni seenu barawaay yàlla rek xam na mu toll malayka yi bokk na ci seenum liggéey ah, jëflante gi ñuy jëflanteeg mboolem nit ñëpp ak jëflante gi nga xam ne dañ koy jagleel mboolem ñi nga xam ne gëm nañ yàlla tey topp yàlla subhaanahu wa taala tey sellal ak jëflante gi ñuy jëflante gi yi ak saay yi ak jëflante gi ñuy jëflanteeg yeneen bind yi ci des muy rabi àll yi bokk na ci sax léeg-léeg liggéeyub malayka borom bi subhaanahu wa boole koog doomu aadama mu koy nattu ba xam fu gëmam yàlla toll te loolu bokk na ci benn nettali boo xam ne abi hurayrata radiallahu anhu nettali na ko ci yonent bi sallallahu alayhi mu wax ko ne dafa masa am ñetti ñu bokkoon ci bani israil kenn ki maanaam dafa siti woon wala dafa gaana kenn ki bopp bi dafa wogu wogu wu ñaaw wogu mooy leel bu rëy maanaam daal bopp li amul benn karaw kenn ki dafa gumba mu am bis nag yàlla yabal ci ñoom benn malayka doon leen natu mu ñëw ci ki nga xam ne dafa siti mu ne ko yow maanaam malayka malayka bi ñëw yor jëmmi nit ñëw ci ki nga xam ne dafa gaana ne ko yow lan nga gën a bëgg mu ne ko man de bu fi mu ne nit ñi dañ may daw ndax feebar bi na ci man bu ma sañoon daal ma dellowaat sama yaram mel na mu war a mel rafet lool mu ne ko loolu suñ borom defal na la ko mu ne ko bu dee ci alal lan nga gën a bëgg mu ne ko euh, gëléem mu ne ko loole suñ borom defal na la ko. bu mu jugee foofu ñëw ci ki nga xam ne dafa waggu maanaa daal bopp bi amul dara ci karaw ba nit ñi di ko ci ñaawal mu ne ko yow lan nga gën a bëgg mu ne daal ba ma sañoon sama bopp bi day amaat karaw karaw gu rafet ndax mel na ni maanaam am naa kersa daal sax di génn ci nit ñi ndax xool bi ñu may xool ak ñaawal gi may ñaawal mu ne ko loolu suñ borom defal na ko mu ne ko bu dee ci wàllu lan nga gën a bëgg mu ne ko ay nag mu koy ko loolu suñ borom defal na la ko. mu ñëw ci ki nga xam ne dafa gumba bi mu ñëwee ci moom mu ne ko yow lan nga gën a bëgg mu ne ko ma sañoon daal suñ borom subhaanahu wa taala dellowaat ma samay bët samay gët ba ma mën a gis mu ne ko lool fiñ borom defal na la ko mu ne ko bu dee ci wàllu àll lan nga gën a bëgg mu ne ko ay gàtt ñoom ñëpp yàlla defal leen lañ bëgg woon mu demee ba jëmmi jamono nag mu ñëwaat yor melaw ku ñàkk. ku yalwaan bim ñëwee ci ki nga xam ne fekk leen nag ku ci nekk ah yaa ngi yor sa géttu ñi kii mi nga yor géttu gëleemam koo xam ne kenn xamul mu toll kii géttu nagam kii ay gétt gàttam bim ñëwee ci ki nga xam ne ah, mooy ki nga xam ne dafa dafa gaana woon te léegi ay mbiram soppiku moom mu taxaw taxawaayu ku yalwaan ne ko dama